ma ni mbëggeel dafa neex yow soo aimé ki la aimé danga koy xool muy ree ngay kontaan mbëggeel yëg-yëg la du ko gis xel sax xalaatu ko bu sincère mbëggeel lu noobu la ni ma la bëggee dafa for dama laa bëgg ba bëgg ni ma la bëggee billaay wallaay bëgg naa la yaay sama chabari badi chabarabada tëb tëb tëb salaamaaleykum internet enquête 221 point comme ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen déwénati ci qualité bi nga xamante ne moom la ñu jóge di am mbégte bu rëy ñëwaat fii encore une fois ci seen émission artiste sur la toile artiste sur la toile tey di dalal beneen artist euh, Didi ñu gën ko xam ci Diaw Diop borom laccum laccuma ak borom bii bii bàyyi la nga nuyoo mais mais mais pas comme nuyoo yeneen kii yaa ah, nuyoo artiste la bàyyi nga nuyoo. waaw kon dafa sama compagnon de guerre voilà. salaamaaleykum. Jawde nuyu naa ma leen. yéen ma ni salaamaaleykum di di nuyu naa ma su ngeen ma fay xam nga dinaa kontaan ndaxte di di moo leen di nuyu yow di leen ndokkeel ci weer wi ñu génn naa leen salaamaaleykum maaleykum salaam dal leen ak jàmm ci enquête te may seen gan faw ñu waxtaan la mission lu ngeen soxla fii lay xewee merci beaucoup <laughs> et très belle entrée <laughs> merci euh, ñu leen nuyu di am mbégte bu rëy di la dalal ci artiste sur la toile waaw merci maa ngi leen di fay di kontaan franchement tey voilà ci ci teewaay bi di nuyu internet yi nga xamante ni ñu ngi seetaan en ce ku ci nekk foo mën di toog rek voilà di la jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla def Sénégal mu nekk ci pays yi gën wàcce fi jàmm sutura fii ak nu jëm xéwal bu saan baan di leen wax ni Didé ngi nii. jaajëf waay. Mm-hmm. Euh, Didi en mu amoon benn émission bu ñuy wax relève bi. Mhm. bon y avait beaucoup de jeunes talents yoo xamante ne moom la fi jaar comme l'indique son nom relève bi. relève bi relève musicale. Mhm. di di génn fa. juste après relève bi lan moom moo ci toppoon. Ah, je pense que le point de départ comme. tu l'as si bien dit si je peux si je peux si je peux me permettre de vous tutoyer. oui bien sûr. voilà donc euh, je pense que moo nekk point de départ bi donc juste après relève bi il y toujours les cours à l'université donc c'était juste après le bac donc il y avait les études en cours mu continuer étudier et de temps en temps c'était de faire des petits singles euh, comme il y avait pas les moyens c'était juste des singles mm-hmm. à la base où tu télécharges des beats tu pars au studio tu payes 10 000 francs pour des prises de voix c'était juste pour poursuivre la passion mais voilà après on a commencé voilà à s'imprégner Okay. et a intégré l'orchestre de l'université Cheikh Anta Diop. voilà avant avant ñu ñëw ci orchestre université Cheikh Anta Diop bi genre da nga ñëw relève tu étais sorti finaliste. finaliste waay ouais. donc après gisuñu benn suivi bu mu am on n'a pas pu comprendre. bon parce que juste juste après relève bi comme je l'ai dit il y les études. mais donc compétition bi da nga dem nga gagné ko après nga demaat continuer say études amul suivi. non pas ma gagné ko. man je l'ai pas remporté. ok dama ñëw ba final après ñu def ay catégories man sama catégorie fi ma nekkoon y avait Lamstar qui avait gagné. ok man j'étais j'ai fini deuxième. voilà mais après ma def continuer sama bout de chemin. ok c'était l'expérience dans relève bi. Mhm. ñi gagné woon ñoom ñu ngi woon studio doon enregistré. léegi man moo continuer def samay cours à l'université parce que aussi y avait les études donc je voulais je voulais pas carrément m'imprégner carrément la musique. et pourtant le talent était là. le talent était là mais relève bi c'était juste une expérience parce que boobu bi ma fay dem c'était pas quelque chose de prévu boobu maa ngi nekk école di jàngantu di wayantu dans les clubs d'anglais di encadrer yenn boy et tout ça donc voilà comme toujours la passion de la musique mm-hmm. école fu mu mënti dem moom laa doon def par le biais de Chaka mu gis compétition bi boole ma ci donc benn aventure la woon ñu am ci expérience biñ ci pare nag voilà amoon na quelque chose de par les réseaux sociaux des gens me disaient un peu partout. Mhm. je suis fan de toi j'aime ce que tu fais. mais bon taxuloon ma nekk ci carrément. parce qu'il y avait toujours les études. oui oui beneen bi aussi on a vu que ni même même ci biir étudiant ah, ndax li la def euh, lead vocal euh, euh, kii orchestre université. Mhm. moom mooy tu étais à l'université di jàng en même temps nga nekk lead vocal comment c'est venu. bon parce que juste après le bac bi ñu demee université euh, je faisais partie des étudiants orientés dans le privé. ok donc euh, j'ai rejoint l'IJEC avant de revenir à l'université parce que après la licence on a sélectionné pour le master ñu delluwaat à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sous bannière IJEC mais n'empêche j'étais tout le temps à l'université doon naviguer. Mm -hmm. donc euh, ci lañ intégré orchestre bi. ma ñëw il des potes on faisait de la musique ensemble l'orchestre était déjà là mais bon amul woon benn assise bi quoi. c'est vrai parce que la musique dans l'université ça sonne un peu mal dans l'oreille. et pourtant c'est c'est voilà c'est une idée boo xamante ni c'est c'est c'est normal parce que voilà comme j'ai l'habitude de le dire de la manière où on allie étude sport. on peut faire musique sport c'est-à-dire il faut juste savoir faire la part des choses. ok je suis d'accord mais du problème mu allier ñaar mhm. mais c'est fait le fait que tey par exemple orchestre université Cheikh Anta Diop ci yow rek lañ ko non mais amoon na mais juste que peut-être ci man le ëpp lu mu doon tourner parce que au début les gens voilà vous m'excusez un peu du terme les gens ne les prenaient pas au sérieux il y avait pas de répertoire voilà il y avait beaucoup de musiciens, il y avait beaucoup d'étudiants. Mais quand je suis venu, au moins, j'ai essayé de structurer avec mes potes, nous faisons mon commencé à dérouler parce qu'à l'université, j'ai joué mon répertoire. Mm -hmm. Donc, tu l'as commencé à jouer leur maintenir au moins et on commençait à faire la première partie des artistes qui venaient okay. et les étudiants commençaient à s'imprégner quoi. ok genre su amaan prestation boo xam ne danaa am à l'université yëg orchestre bi orchestre bi moom mooy njëkk a joué mais après suivi bi ci waroon am amu ci parce que on avait déjà acheté des matos pour ñun jëndaloon matériel yooyu yëpp. mais kan moo leen jëndaloon boobu. bon euh, y avait OPI moom moo débloqué woon par rapport ak matériel boobu le ministre Diouf saar moom moo fa nekkoon. ok léegi ñu jënd matériel yi jënd ay instruments jënd lépp et on a mis la salle. Soweto à notre disposition. donc on répétait là ba on avait tout ce qu'il faut jusque amul woon bi. parce que l'idée c'était de venir de répéter. Okay. s'il y avait des prestations on fait la première partie et après voilà ça se limitait là-bas. est-ce que tey par exemple euh, nu mu tuddati ñi waroon consommer seen musique les étudiants. daan nañ leen consommer et puis di créer ay cadre pour que ngeen def prestation. amul woon carrément et je pense que loolu moo indi benn déclic du tax après ma quitté orchestre de l'université monter sama yëf parce que après j'ai essayé de monter un projet pour venir leur dire que ok l'idée c'est quoi nous nous sommes des étudiants. Et il faut que les étudiants se retrouvent dans ce que nous faisons. Effectivement. On a composé des chansons pour définir ce que c'est que l'étudiant. Parce qu'ici au Sénégal, quand on dit un étudiant, automatiquement les gens ils pensent voilà da ngay grève da ñaxtu alors que c'est pas ça un étudiant tey ñun. képp est-ce que nekkul coloration boobu lañ gis ci ñoom. waaw mais parce que loolu la ñuy wane souvent tey quand on parle des étudiants forcément y a grève mm-hmm. si on parle des étudiants ci médias yi. tey du étudiants yi ñoo fi am ñoom la ñu boursier wala lii wala daal tout ce qu'on met en avant c'est toujours étudiants yi ñu ngi grève front parce que ñu ngi casse ñu ngi laaj alors que y a d'autres aspects yoo xamante ni étudiants ñu ngi fa tey ko man ci doon ci réew mi étudiant mooy la l'avenir du pays. Mm-hmm. donc on dit l'université c'est le Sénégal en miniature. parce que couche sociale bi yëpp nga fay fekk. tey ñun ñooy représenté doom yu jóge ci société bi. Mhm. ñun ñooy représenté futur réew mi ñu nekk ci kaw tey ci ñun la ñu jóge tey ñu nekk di ñu diriger. Mhm. donc y avait des thèmes yu ñu développé woon ay son y benn projet bu ma bindoon moi-même dem soumettre ko direction bi ne leen l'idée c'est de faire des after work avec des flyers devant chaque campus. pour permettre étudiants ñu ñëw ñu jox leen ko après on organise on devait organiser des after work à la mhm. salle Soweto même bu ñu koy def entrée téeméer où les étudiants pouvaient se retrouver am benn cadre parce que l'épanouissement dafa bokk ci université effectivement après les cours il faut exactement étudiants yi am lu leen di occuper mhm. donc que ça soit la musique que ça soit muy yeneen pratique et tout ça le sport et tout ça loolu lépp daf ci laaj euh, bon ça n'a pas pu aboutir. Ouais, il n'avait pas les mêmes visions wala peut y avait d'autres choses qui bloquaient je je sais pas fan la doon tàggee après voilà ma jël sama yoonu bopp. mais tey tu es au courant que ni am na benn rajo bu ñu monté boo xam ne rajo universitaire la bu nekk université Cheikh Anta Diop est-ce que tu es prêt à participer tey pour defaat benn retour au bercail. mais pourquoi pas parce que man l'idée euh, d'habitude quand je me retrouve à la télé les gens ils disent souvent ouais chez donc tey l'idée man c'est de montrer la face cachée des étudiants wow. donc je suis là lépp lu ñu mën a def tey pour euh, gën a véhiculer message étudiants yi pour gën a mën a am benn visage bu ñu leen xoolee ci société bi am une mais depuis lors tu n'as mais si j'ai j'ai créé tu as créé, créé mais tu n'as pas chanté les étudiants mais parce que je suis en train de bosser sur un album xam nga tey euh, après l'université comme je le disais je voulais pas trop m'afficher mais cela ne m'empêchait pas de faire ma musique. mais ci beneen cadre. donc en un moment donné on a acquis je dirais pas assez d'expérience un peu d'expérience le peu d'expérience qu'on a acquis ñu ngi ko doon am ci tournée yi ñu doon def di jouer tout ça di jàng donc ça nous a permis ñu dem ba en un moment aussi di ok là on doit sortir un album. Mm-hmm. léegi lépp loo gis c'est un commencement l'idée c'était d'entrer d'abord. par un style boo xamante ni c'est beaucoup plus populaire. Mm. pour que les gens s'y retrouvent mën la accueillir avant de développer d'autres chansons. effectivement étant jeune. Mhm. nga jógee foofu automatiquement créer sa orchestre. Euh, mooy seen mélodie bande. Mm -hmm. c'était pas facile du tout parce que. parce que tamit xam nga euh, c'est un peu étonnant sa âge. Mhm. Euh, xamaguñ la ci musique comme il il se doit. Mhm. nga ñëw créer benn orchestre. tout d'abord les débuts bon c'est c'est d'abord c'est la passion e l'ambition parce que comme j'ai l'habitude de le dire moi l'idée c'est pas de le faire de la musique pour le buzz euh, benn passion bu ma yàgg animer le depuis tout petit mais aussi comme on a l'habitude de le dire quand il faut faire quelque chose il faut bien le faire effectivement man c'est ma philosophie su ma demee bay euh, perdre sama temps ci dara non dama koy jox akam donte nag mënuñu matale lépp mhm. donc je me suis dit ok j'avais pas le temps trop du maison de production du dara donc l'idée c'était pas de faire des singles et courir derrière les médias parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Mhm. mais par contre j'avais la possibilité de faire mes cours en même temps il y a d'autres portes yoo xamante ni ils n'ont pas besoin que tu sois connu pour que nga mën fa jouer mhm. foofu euh, c'est je dirais pas c'est l'expérience mais c'est le pratique da nga ñëw nga man nga jouer mënuloo tu vas pas jouer. effectivement parce que ñi fay ñëw d'habitude c'est des connaisseurs c'est des gens yoo xamante ni voilà ay honorables la ñuy doon. Euh, euh, on va en venir après si live yi nga doon def. Mm-hmm. mais par contre les moyens. parce que créer ci loolu laa ñëw euh, ci loolu laa ok ci loolu laa ñëw c'était juste pour dire le déclic bi ko bi ko créer effectivement léegi bi ma je me suis dit ok l'idée c'est quoi je monte un orchestre je vais tourner en même temps ça va pas m'empêcher de faire mes cours donc comme que on était déjà à l'université on tournait ils connaissaient déjà mon répertoire donc l'idée c'était d'en parler trouver benn consensus léegi nag à chaque prestation bu ñu jouer man lu ma ci am daaw ma ko lekk. ok d'une part damay jël lenn lii c'était pour satisfaire sama yenn besoins yi ah. paa yi mère bi ñu ñaan ci xam nga après le reste dama doon jënd tey ma jënd guitare. Mhm. suba ma jënd batterie. Mhm. ginnaaw suba ma jënd table mixage. donc j'essaie lépp lu ma amoon dama koy jënd def ko matériel. Mhm. donc ça nous ñu am suñu benn affaire bu ndaw. dañu permettre bu ñuy répéter dañuy taal suñu matériel léegi après le reste ak suñu batterie dañuy ñëw. tu nous cales pour une audition ñu ñëw jouer on a un contrat on gagne de l'argent là mhm. après ñu élargir ko. effectivement j'ai vu que aussi yow yaay artiste boo xamante ne bien avant que nit ñi di la xam sur la grande scène. Mhm. commencé nga di def euh, euh, ay live ay after work ci ay hôtel ci ay boîte ci ay place wala wala mu am ay cérémonie yoo xam ne dañ lay woo nga fay jouer. bon comme j'ai l'habitude de le dire alhamdulilah ci côté boobu parce mhm. que. parce man, que les lives sont venus avant le single. très bien cest à man je tourne plus. il y a pas mal d'artistes la sont là qui sont connus. alhamdulilah yàlla mayoon na ma chance. chance man ma ëppoon lu ma leen doon tourné. ok ni ma wax noonu la ma ëppoon lu ma doon tourné. Mhm. parce que amoon naa possibilité tey ñu joué ci hôtel bi suba je bossais avec même des ONG. ak même avec des ambassades. parce que que ça soit muy l'ambassade des États-Unis mhm. ak yeneen ONG et tout ça lépp lu ñu doon organiser j'avais la possibilité man maa fa doon nekk. tu dois avoir un bon manager. <laughs> ouais un guerrier. waaw c'est c'est un ami. Ah. parce que il y avait pas d'expérience dans le milieu. Mm -hmm. donc tout se faisait entre nous ñun. ñoo doon créer doon loolu lépp pa avait pas un manager boo xamante ni moo fi nekkoon di teg quelqu'un d'expérimenté wala bu nekkoon euh, ci milieu bi on faisait tout mm-hmm. on faisait des cartes de visite on confectionnait on partait on déposait et on te demande juste une audition on te demande ouais laisse-nous jouer si après tu vas décider donc c'est comme ça que ça se passait et les autres trucs voilà man je me suis toujours engagé sur tout ce qui est cause sociale surtout avec les enfants. Mm. donc ça m'ouvrait d'autres portes avec des ONG. oui c'est normal parce que social boo ci commencé rek daf lay permettre nga am ouverture xam ñeneen. très bien parce que avec spécial olympique ce sont les déficients intellectuels may seen ambassadeur. Mm. les enfants de la rue avec l'empire des enfants Peine Attitude yenn association yu bari yu jàppale xale yi man dama doon porter au volontaire mhm. ñëw j'ai créé des chansons pour les enfants j'amenais mon orchestre et je jouais souvent les gens ils ils ils kiffaient et tout ça de ce fait ça me permettait d'avoir d'autres links mhm. et au-delà de ça dans les hôtels où je faisais des prestations j'avais l'habitude j'avais la chance aussi de rencontrer des des personnes influente yoo xamante ni ay nit lañ yoo xamante ni voilà. effectivement am nañ benn kii bi ñoom ñoo ma doon mettre en rapport ak yenn coups yi. ok donc ça nous permettait ñun de tourner. mais en un moment donné nag bi ñu demee xam nga am yenn détails yu commencé dajaloo di ñoom on s'est dit on s'ouvre grand public ci lañ génnee lu cum lu cum